La Suisse et l'Angleterre de Southgate s'affrontaient cet après-midi. Un match plaisant qui a tenu toutes ses promesses. Un match très disputé puisque c'est un quart de finale de Coupe du Monde. À la 30e minute de jeu, Maguire marque pour les Anglais. Suite à un corner tiré par Ashley Young, Maguire catapultait le cœur de la tête au fond des filets. un but à zéro jusqu'à la mi Au retour des vestiaires, la suite mettait la pression sur les buts

et c'était Kosovo. D'une remise, le gardien n'y peut si ce n'est la balle dans ses cages. Deux buts à On est à la 115 de jeu. Fernandez marque pour la Russie. Quel match, partout. La séance fatidique de tir au but s'impose. Mais les flamboyants croates ont souffert mais passent en demi-finale. Ici à Sochi, en Russie pour KSTV. équipe Suède bi nag da doon jouer ak waa Angleterre mu doon match boo xamante neex na lool ndax mu tàmbalee dafa neex ndax quart de bëkki benn bal ne corner la moo ko daal di joxe mu tëb daal di yóbbu bal bi ci caaxi mu doon benn bal ci tarapu équipe bu Angleterre bi ba ñu demee nag ba mi-temps bi ñu ci dara ba ñu footballee nag ba soixantième minute ci la triple daal di joxe benn bal Lingard mu daal di def benn centre bu baax pour jour bi ñu wax di tëb mbëkk bal bi mu doon ñaari bal ci dara pour équipe bu Angleterre équipe bi nag jiital ñaari yoon équipe bi nga xam ne moom mooy équipe bu ni mu mujjee nag xam nañ ko ndax équipe bu dafa daal di gérer matcham ba mu jeex nang ñu fàttali ni nag ñoom ñi ñuy woowee Three yi seen match bu njëkk officiel ñu ngi ko joué ci ba noppi benn yoon lañu mës jël coupe du monde te boobu ñoom ñoo ko organisé woon beneen match bi mi doon dox ci diggante Russie ak équipe bi nga xamante mooy équipe bu bu ñoom Mandžukić match bi nag xaw a ba ñu fubalee nag ba 31e minute de daal di joxe bal bi mu dem benn tour bu am doole lool ci maanaam ñeent fukki mètre ak ñeent bal bi daal di romb daal di dugg ci lucarne bi góol bi nga xam ne mooy góolu Croatie bi nag mënu ci dara ndax bal bi doole bi mu àndal daal di dugg mu doon benn bal ci dara ci ñi nga xam ne mooy équipe bu Stanislav Chelsea sol ba ñu footballé ba 39e minute de jeu nag ci la waa Croatie égaliser ku ñuy wax Mandzukic ci moom profito ci benn moment boo xamante ne ñi nga xam ne ñooy joueur Russie yi xaw a bàyyeeku ci la profito am benn bal daal di koy jox ki nga xam ne mooy Kramaric mu daal di koy def ci premier poteau bi doon mbëkk bu am doole mbëkk piqué ñu daal di égaliser mu doon benn bal fu ne ba noppi tax na mat bi amaat ci yaakaar relancé wu waat ba ñu footballé nag ba nga xam ne dem nañ ci prolongation bi cent unième minute bi dugal seen défenseur bi nekk xamante ne dafa njool 1 mètre 84 daal njëkk bu mu dugal ba noppi mu doon ki nga xamante équipe Croatie bi moom mooy góolu waa Russie mënu ci dara lu dul xool bal bi di dem boobu match bi nekk na ñaari bal ci benn ba ñu fubalee nag ba cent quinzième minute ba mu des juróomi minute rek ngir mu jeex ci la ki ñuy wax Fernandes sóoru Russie bi daal di dugal Liverpool pour waa Russie mu doon match bu neex fu mu mujjee nag dem ci li nga xamante bi moom mooy tiro bi ñi ñu woowe flamboyant yi waa Croatie nag sonnoon nañ lool waaye finalement ñoom ñoo mujj qualifié demi-finale fii ci Sotchi ci Russie 2018 pour KS TV